alhamdulilah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alim hakim eh, sa sama la bokk bi moom li muy laajte mooy eh, léeg-léeg nee na léeg-léeg nga gis koo xam ne suy wax day faral di wax billaay billaay loolu ndax loolu dañ ko si dañ koy compté comme ji wala bu ko jàppee alhamdulilah rabbil alamin loolu mooy li ñuy wax ngiñal xamuus nit nag na góorgóorlu ba bañ a tàmm loolu su fekkee nag da koo tàmm ba boole ko ci waxam dañuy wax ni loolu nekkut lu garaaw léegi nag boo gisee ku tàmm wax lu mu wax rek ne billaay billaay billaay fi ngay xamee ko kii bi euh, dëgguwut mooy bu keroog buy wax lu ko ñor billaahi ja dana wuuteeg billaahi ja mu doon wax ci wax bële moo tax ñu ne loolu moom euh, xëy na sib nañ ko waaye àggul nag ci xaraam comme li borom bi tere noonu incha allah rabbi euh, man ah waaw waaw mën na leen dal ndax tere bi newul ci xol lay jóge wala déet yonent bi nee na bu leen wax loolu kon tere la comme tere la bu ko def bul mer rek nga wax sa jabar musiba wala sa doom musiba déedéet loolu kenn du ko def soo ko naree wax teel sa làmmiñ wal kaadimiina al xayda nëbbal sam mer mer nga mais muñal mais am na kaddu goo xam ne boo ko waxee yow sax yaay njëkk rus te kàdd googu nag mën na toll ndox xadar bi dogal am loolu am fekk yow yaa ko def en tout cas baaxul na ko nit ki moytu incha allah. Hmm? maanaam bu fekkee li mu ci jublu moom mooy bobbali la ci jublu euh, loolu. dañuy wax ni nit ki ci biir julli xam nga seytaane mooy gëmmentuloo nit bu fekkee nit ki dafay gëmmentu jël loxoom masalan war a óbbali mu taf loxoom pour gémmiñ gi war a jóg am na ci borom xam-xam ñu ne na ko defee loxo càmmiñam ginnaaw loxo bi ngir bañ a fatt kéem bi mais en tout cas borom xam yi wax nañ ci mais nekkul wax bu dëgër boo xamante ni jëm na ci tere boo xamante ni bu ñu dogu lool la mais ala kulli bañ gee def moo gën moom incha allah rabbi hmm? waaw mu ne est-ce que waxul non mu ne est-ce muur gémmiñ yaakaaruma boobu la wax de ah moom moo mën a leeral kii bi de waaw ah, moom moo ko mën moom moo mën a leeral fa moom moo ko mën a leeral xoolal baat bi ba xam waaw bu dee sadd muy tëj moom ah kay bu dee talassum mooy mooy mooy mooy kii waaw bu dee talassum moom mooy maanaam muur gémmiñ ci biir julli nii loolu moom gis nga maanaam nit ki jékki rek tax gémmiñam wala mu jékki muur ci gémmiñam dara bu dee ci góor day dafa nekk makruh inda moom lu ñuy lu ñuy lu ci borom xam-xam allah. mooy da Ah, bu ko jàppee noonu mu yomb de kon daal li ñu def moom mooy daal ku lekk yàlla la soob ku lekkul yàlla la soob kon toogal mu soob yàlla nga lekk waaw xam nga loolu ku la ko wax doo ko def waaw loolu nag yàlla mooy jubal ko ne mooy da ngay jëm ci yoon wala jubloo yàlla dimbali la ci boo jëmee ci yoonu caaxaan yàlla seetaan la fa hadaynahu najdayn loolu rek moom mooy wax ji incha allah góorgóorlu ci yoonu jub yàlla dimbali la ci moo gën jàpp ni su ma jubee yàllaa ma jubal su ma jubalu yàlla ma jubal boo dee doo ci am lay incha allah kon imalu fa kullun muyassarun la li yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam jëf leen rek kenn ku ne yàlla dina la yombal kon jëmal ci lu baax moo gën incha allah. kon kon wax ji leer na moom kay bi mu àggalee aay bi rek la jeex xam nga maandu leen ci diggante soxna yi loolu yàllaa ko digle yonent bee koy digle léegi nag walan tastatiu an taadilu boobu problème mu xol la xol moom moomu leen ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwoon ci këram indi pour jigéen ñi day séddali mu tolloo fu mu dugal bale fu ne mu dugal fa bale ba pare nag ne yàlla bu ma toppee li nga yorte yoruma ko li nga yorte yoruma ko mooy xol bi xol bi am na ku mu gën a bëgg mais bu ko manifesté ba ñu xam ko loolu lay tekki moo tax mu ne ku tamilu may la kon am na jeng buy am moo tax yenn borom xam ñu ne hunaka baadul mayl baadul mayl nag na nekk maylul qalbi la maylal amali na nekk jengu xol mais bu mu nekku jeng jëf waaw ñaari jabar yi toog nga xool yëpp ba mu neex la nga def la góor ga defoon nag ñaare bi génn xees pecc mu mu fàtte ko ndaay waaye jabar day xees gees yem ci awa bi naa mbaa mu ñuul ñëpp yem bu ko defee aaw bi xam na ni moom kële kële la tax a siicu ba ni xeet xam na ni moom nga gën a bëgg mais nga yemale ko rek mu mu sedd benn yoon kon loolu kenn ku ne xam ne fu nga gën a féete mais maandu ca incha allah rabbi yi <laughs> <laughs> nag moo bëri problème <laughs> ban ñaan la allahumma axrusna bi aynika allati la tanaam ah waaw ah, kooku mu ñaanu ibrahima adham la mooy yow yàlla yàlla na nga ñu sàmm ci sa bët bi nga xam ne du nelaw xam nga yàlla du nelaw ah, yàlla bu la sàmmee ci bëtam bi nga xam ne du nelaw mooy kenn du la mën a dara ruknika alladi laa yuraam yàlla na nga ñu teg ci sa côté bi nga xam ne kenn du fa dugg ba mënal ci ñun dara waaw loolu loolu la ñaan bii tekki incha allah dafa bokk ci ñaan yi nga xam ni borom xam-xam yi dañ ko bëgg salafu saalih dañ ko bëgg te ñaan la boo xamante ni bu am yaakaar la nit ki feeg mi ngi koy def na am sécurité am dal ni dara du ko mënal dara incha allah waaw dara du ko mënal dara bu ñu jëloon àdduna bi dur ko sa kawit mën luñu la tous bu soobee yàlla lu ñu jéem nañ ko jéem moo tax ku nekk na koy jéem di def foo toll incha allah rabbi ahabahu min ajlihi alladi ahabbana yàlla mi tax mu bëgguñu yàlla na ko yàlla bëgg ñëpp ñu bëgg ñu nit bëgg nañ ñëpp suñu mbëggeel yàlla na ko yàlla téye ba yowmal qiyaam ñu daje àjjana di fàttaliku masjidul muxtaar waaw fàttaliku masjidul muxtaar loolu damay toog wallaay ren damay ñaan ci màkka ñaan ba ci yàgg ma reetaan waa ji am mu looy ree ma ne ko damaa xam ne li ma ñaan est ce que yàlla dina ma ko may mu ma ah yaa ngi commencé sikki ci yàlla ma ne ko dama ñaan yàlla mbokk sunna yi ma xam ak suñu wastaf bi yëpp ma ànd ak ñoom ñu aji ñu ànd ñun ñëpp ñu aji nga xamante ni yëpp ñooy gisandoo suñu bopp ba ci yàgg di ñaan di ñaan ba ci yàgg rek ma reetaan parce que nit di nga bëgg loo xamante ni dangay dem ba sikk est-ce que yàlla dina ko def mën na ko yàlla na nu ko defal te bokk na ci am yaakaar ni dana nangu maa ngi am yaakaar ne yàlla mën na ko dana ko nangu waaye nag ni tey ñaan ba ci yàgg mu <laughs> mu xaw a kii mais loolu da ngay seet léeg-léeg nga am bëgg nit nga waa ji dafay xool sëriñ bi di ko xool ba ci ne ko sëriñ mu ne ko yàlla boo dee sëñ bi ne ko da ngaa xërte baax rek waaye ñaan bi du nangu wax na dëgg xërte baax la mais ñaan bi du nangu yàlla boo dee mën naa dee kenn dee ah ah waa ji xool jabaram ba ci yàgg ne ko billaahi benn jigéen la yàlla bind yow la waaw xam nga kooku la ko ndaw si defal ba mu wax lii fàtte na sax ne yaayam jigéen la kon lu mel noonu ñu suñu bëggeel gi yàlla na ko yàlla saxal kenn ku nekk na ñuy ñaanalante ci biti gis nga addu'a ala zahril qalb dara melul ni moom nga toog rek sa xel xalaat daf may dal ci ñu bëri ci mbooloon damay jékki rek fàttaliku kenn ñaan ñaan ñaan ñaan te wallahi yàlla xam na du ma koy wax keneen am na ñuy def lu lu ëpp loolu may def mais léeg-léeg di rek nga ñaanal ko ñaan boobu yonent bi ne du échoué yàlla da koy nangu kon ku nekk nay defal loolu suñu moroom beneen bi di ko defal euh, ñi yàlla nattu mooy ñu mel ni ñun li ñu ñaanal tam dafay faral di baax ndax yi ñuy ut day bari xam nga ñépp yàqule baaxul mais am na bopp yoo xamante ni bu amee problème rek yu bari am problème waaw loolu nag day jar léeg-léeg di di di ñaanal boroom di ko ñaanal yàlla ngir yàlla yàlla dëgëral ko tànkam ndax ku sóoru iblis di xeex ak moom yaa ngi xeex ak ku dul tàyyi du bàyyi du sonn te ëpp lay at te di la mujje dee kon boo ko rëccee yàlla la dimbale kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal ko ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu